dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw jaajëfaleen ba noppi wéyalaatu ak yéen ci xibaar yi wax rek ci dogal bi nga xamante ni Sénat jël na ko dem ci commission national électorale jot na tranché nag ci favori kii di Ousmane sunko xibaar yoo xamante ni dañ ko jotoon nag tëj ba kenn mënu ko jot nit ki toute une journée ci altine bi waaye nag média fas yéene ci indi ci ab leeral buy sukkandikoo ci benn source concordante boo xamante ni ñi di waa commission électorale autonome di Sénat jot nañu estimé ne ko Ousmane Sonko dina nag yelloog ak ak yëleefam ñi nga xamante ne moom la daal di am dinañ ko tranché jëm rek si wàllum statut électoral maanaam boo muy dañ koy delluwaat ak gilifam yi nga xamante ni loolee moo koy permettre mu mun a bokk ci liste électorale yooyee par conséquence bi nga xamante ni ñi di direction générale des élections du DGE nag fas yi nañ ko remetre ngir ñu mun ko jox lii di fiche de parrainage bi jëm ci relation ak bépp service compétent loole nag la ñu daal di xamle organe bi nga xamante ni moo dirigé loolee di Doudou Ndir moom nag jotoon na envoyé ñi altine bi ab courrier jëmale ko ci autorité ak beneen euh, pôlu avocat Ousmane Sonko ñu fas yéene nag daal di déglu nee na lépp nag dinañ ko saytuwaat ci administration bu fekkente ne administration dina exécuter cette fois si dogal bi nga xamante ni euh, ñu ngi koy xamle Ousmane Sonko dina am ndam nag te dina bokk ci liste dina bokk nag ci liste électorale yi ba noppi fas yéene bokk ci jongante bile euh, Pastef bi nag jot na remporté nag fa nga xamante ni rek ci kanamu tribunal Ziguinchor ndax foofee nag kii di juge Sabassi Faye dafa joxe woon dogal ngir ñu dugalaat Ousmane Sonko ba noppi annulé radiation ci liste électorale yi euh, conséquence nag ordonné nañ ko ngir ñu dugalaat ko ci liste électorale yi état bu Sénégal nag jaarale ko ci agent judiciaire jotoon na formulé ak pourvoi ci wàllum cassation ak ñii di waa direction général yi nga xamante ni dañ lankoon te ñu remettre Ousmane Sonko fiche de parrainage yu mandataire bi ci opposant bi nga xamante ne jamono ji dañ jàpp ne ci kaso bi la nekk niki talaata àdduwaat nag ci recours bi nga xamante ni ay avocat wam jotoon nañ ko sàkku jëm ci radiation ak dissolution parti Pastef bile état bu Sénégal nag jotoon na solicité ñu renvoyé ba juróom ñetti fan ci weeru novembre bi ñu dégmal li ko waral bokk na dañ amoon jafe-jafe ci wàllum coupure courant ba tax nag internet bi doxutoon bu baax loolee nag nekk ab refus catégorique boo xamante ni ñi conseil Ousmane Sonko dañ ko bañoon dossier bi nag dinañ ko plaider jotoon nañ ko plaider ba délibéré bi dinañ ko amal juróom benn fan nag ci weeru novembre bu ñu dégmal ci base boobee sax base ak ses constatations yi nga xamante ne nag ak lu jëm ci wàllum état de droit Sénat mi ngi estimer rek ne ci état wu procédure euh, li ci sauf disposition légale contraire ba nga xamante ni lu jëm ci wàllum préjudice la ak décision bi nga xamante ni justice fas yéene ci intervenir monsieur Ousmane Sonko dinañ ko delluwaat lu jëm ci àq fam maanaam dina jouir ce statut électeur dina mel ni ku bokk ci électeur ci liste électorale yooyee ak ñëpp ak àq géléfam yi nga xamante ne loolee la gàlloo ci conséquence Sénat mu ngi invité nag direction générale des élections mu fas yéene euh, jël euh, en mai relation bi nga xamante ne amal na ko ci ab service yi nga xamante ne ñoo concerne lu mel ni ministère bu yor lépp lu jëm ci élection yi mesures nécessaires yi nga xamante ne dinañ ko teg ci yoon disposition yi war ba ñu mandataire Ousmane Sonko bi ñu jeexal ko euh, fas yéene ko jébbal lu jëm ci fiche de parrainage bi nga xamante ne boobee ba tey nag ñu ngi koy kii loolee fiche de parrainage boobee sax ci clé USB bi nga xamante ne foofu lañ koy jëfandikoo ñu tàmbali di collecte jaarale ko ci loi nañu gëm nag ni euh, directeur monsieur directeur général dina assurer lu jëm ci parfaite considération kon buñ ko déggee mu ngi mel ni Ousmane Sonko nag ndam mi ngi bëgg am loole la ñu xam ne ndax waa Sénat nag ñi ngi invité direction générale des élections ñu jébbal Ousmane Sonko fiche de parrainage bi ndax dinañ ko delloowaat tam ak ak yelleefam di ko permettre mu samp ndëndam ci élection 2024 yi ñu dëgmal